salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport dañuy doore ak kàddu yi nga xam ne kii di Andy Diouf dal dina koy yëkkati moom mi nga xam ne ñoo ngi ko doon xaar mu teew ci équipe nationale bi jàppale suñu gaynde yi ba tax sax ñu annoncé ne war na bokk ci list joueurs yi nga xamante ni Cissé dina leen woo ci match bi waaye gis ngeen la ci ruusee woon mu tànn dem football ci espoir bu France léegi nag mbir mi yemul foofu ñu bëri doon ne bés dina ñëw ñu woo ko ci A bi maanaam kat bu dee joué ci gone bi waaye tey moom tëj bunt boobu ndax kàddu yi mu yëkkati ko ak espoir bu France ndax nee moom dafa yàgg jouer ak li nga xamante mooy espoir bu France léegi nag dafa bëgg continuer ak ñoom fi ne nii nag beneen rêve bi nga xam ne am na ko mooy dem ci équipe nationale A bu France maanaam dafay jógee espoir dem ci équipe nationale A bu France loolu nag kon ku ko dégg mooy da ngay sa xel ci moom te jàpp ne kii moom am na feneen fu mu teg bëtam furul Sénégal loolu nag jàpp naa ne njumte la boo xamante ni ñi ko jiitu am na ñu ko fi defoon ñenn ñi Sénégal baal na leen jàpp naa ne kaw Bouna moom kenn du ko fàtte waaye nag yu ni mel est-ce dina mën a wéy di ko baale maanaam dem ba jëmmi jamono France dëgër mu bëgg ñëw jouer fii est-ce dina ko nangu Cissé day waxoon na fi ne dootuñ fi topp ci gannaaw kenn di daw ci gannaaw maanaam di lambar sénégalais mën nañu ko mere ci jamono bi ñu ko soxlaa te ñëwul waaye da nga gis ne xëy na bés mën na ñëw ñu am soxla ci moom daal di koy jële ndax bunt bi tëjuwul waaye ki nga xamante ni moom dafa ubbi li nga xamante ni mooy ay gëtam teg ko ci équipe nationale A bu France yemul ci mu daal koy addu ci micro ñëpp di ko dégg loolu moom jàpp naa ne gars yi war nañ ci mën a génne suñu xel te jéem a lijjanti leen am nañ gone yu mën a football nañu leen bàyyi xel te am na ñeneen ñoo xamante ne seen yéene mooy football ji ci équipe nationale bu Sénégal bi kon ki nga xamante ne mooy jouer ci équipe nationale A bu France nañu def la Cissé waxoon rek dal di koy ñaanal voilà mu wéyal mën na am chance bés ñu woo ko ci équipe nationale A bu France waaye ñun suñu yoon nekkatu ci ay mbiram ab français la dañu koy jàppee ni ab français rek voilà waaye daal maanaam di ko séntu mu ñëw jouer ci équipe nationale bu Sénégal jàpp naa loolu war nañ a génne suñu xel moom nag jamono bi ca Lens la nekk di fa football yi ab xel nag day xëy naan Lens googu mu nekk am nañu sax jafe ndax bi ñu tàmbalee saison bi ba léegi day benn poñ képp la ñu am te Lens daaw équipe bu baax la yoroon joué ba qualifié ci Ligue des Champions bi waaye ren ji seen ndorteel doy xaw na sooxe de ba ñu am sax jafe-jafe ci milieu bi ba dam di jëli ki nga xamante ne mooy Nampalys Mendy bi nga xamante ne international sénégalais la dal di koy indi foofule kon Andy Diouf moomu dee jàpp naa ne xëy na bu dee ne euh, li ñu ko doon xaaree mane na ko dëgg-dëgg xañ naa ne lance du dem indi ki nga xamante ne mooy Nampalys Mendy ngir mu dal di leen jàppale ci milieu boobu kon gars yi loolu rek lañ bëggoon a leeral mbiroom Andy Diouf moom leer na voilà moom France la bëgg a muy équipe nationale A bu jógee ci espoir bi Chelsea football club jamono bi ñu ngi dox sponsor bi nga xamante ni xëy na moom la ñu gisagul ñu def ko ci seen yére muy mbubb mi ñuy footballé xam nga bind ñu dara ci kanam amul benn sponsor bu ci nekk ci équipe bu mag bu toll ni Chelsea waaye loolu yëpp dafa rafetal maillot bi sax bu ngeen di bàyyi xel léegi nag nee nañu dey moom Chelsea nekk di waxtaan jamono bi ak benn voilà man nañu wax né compagnie ay avion la dal compagnie aérien jamono bi bu nek fele ci saudi arabia wala jamono bi ñu ngi waxtaan ak ñom ñukoy tuddé ria euh, riat air over jamono bi ñu ngi waxtaan ak chelsea ngir wara manam nek sponsor bu chelsea ñu war ko bind ci li nga xamantene moy seen yërebe ci kanam comme ni ngeen ko doon gisé ci at yi wessu chelsea nak jamono bi manam li nga xamantene mom la bëgg ci li nga xamantene moy manam sponsor bobu mu fay lu toll ci 60 millions de livres si góor ñi ak ci jigéen ñi manam dal képp ko fay 60 millions de livres ñu ngi mar ko mëna def ci mayo góor ñi ak jigéen ñi su a euh, boobu nekk fële ci Arabie Saoudite gannaaw loolu ñu gis ne ki nga xamante mooy Marco Verratti moom jamono bi kat ñu ngi koy séentu fële nga xamante mooy ca Qatar moom sax day dañu ko zappe ñii di Paris Saint-Germain boole wuñu ko ci groupe bi war a jouer ci Ligue des Champions bi te nañu la ko waral mooy dafa jege ngir dem ca Qatar ci club bi ñuy wax Al Arabi Al Arabi nag ñuy signé Abdoulaye Diallo jëlee ko Paris Saint-Germain ñoo bëggaat kii di Marco Verratti te njëg gi nag nañu ñu ngi koy xayma booru jàpp 50 millions d'euros bu dee mbir moomu daal dinay sotti waaye daal loo ci mën a dégg moom liste Ligue des champions bi moom daal di wut ci bokk moom kii di Marco Verratti gannaaw loolu li nga xamante ne ay ci Ballon d'Or bi ak li nga xamante mooy meilleur jeune bi ak meilleur gardien loolu yëpp daal dinañu koy dénk maam tànn tey euh, tey jile bu ñu xoolee na africain ñoo ngi ci waye tam liste ab gone yi manam ñi nga xamanteni ay gone lañu ñi gëna nekk ci wala Europe gi wala bok aduna bi ci nga xamanteni ñoo dàq football tan nañu len fofit dinañ ci ñew waye buñu xolé li nga xamanteni moy liste ballon d'or bobu ñent africain képp ñoo ci nekk ci atum ren bile Wala xam ngeen ne Sadio Mané mom bokul ci ndax xam ngeen xaj na saison bu doy war bi mu def daw ak blessure yi mu amone bokk na ci li tax bokul ci amul ben sénégalais bu ci né waye ñent africain ñoo ci dinañ ci ñew légui dañ leen di jox rek liste 30 jours yi buñu xolé nak ku ci melni Mohamed Salah mo ngi ci kii di euh, ngi Andre André Onana, voilà Jamal Musiala, Karim Benzema, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randall Kolo Moani ak nga xamanteni moy Bernardo Silva. Kelia, Robin Jazz, Emiliano Martinez Nicolo Barella Erling Haaland Martin Odegaard Ilkay Gundogan Vinicius Junior Julian Alvarez Yassine Bonu Rodri Patay, tey ci Man City la Lionel Andres Messi Lautaro Martinez Antoine Griezmann Robert Lewandowski Luka Modric Kim Min-jae Harry Kane Victor Osimhen ak Kylian Mbappé li moy 30 jours yi nga xamantene ñom lañu tan ngir ñu wara xëccu li nga xamantene moy ballon d'or bi su ko défé nak bu ñu ba voilà euh, ba ci kanam ak kanam ñu daldi di ñi nga xamantene ne ñoo ñett ña ko war a finaalu loolu nag yeggaguñ ci way bu ñu africain ñent ñi ñoo ci nekk Mohamed Salah Victor Osimhen yassine Bono ak kii di André Onana moy ñent ñi nga xamantene ñoy africain yu ci bokku ci liste ballon d'or yoy nga xam bobu nga xamantene voilà ñi ay nomé lañu ñu ngir ñu koy xëccoo ñaar ñi ci suuf nak mu yassine Bono ak André Onana bokku nañu tam ci li nga xamantene moy trophée yassine bi nga xamantene ni moy gardien bi gëna xarañ ñaar ñi euh, gardien africain yi ñoo ngi ci voilà waye nak buñu xolé liste gone yi muy gone yi nga xamantene ñom lañuy la ñuy li ñuy tuddé copa muy meilleur jeune fofu buñu xolé Bellingham mo ngi ci ki nga xamante Gavi moo ngi fa Eduardo Camavinga Elhouahi Pedri Jamal Musiala Savi Simon, Alejandro Balde Antonio Silva ak ki nga xamante Rasmus Højlund mooy gone googu signé ca Manchester United bu yàggul lii mooy fukki ñi nga xamante ne ñoo new today, xëccoo loolu ñuy trophée di Raymond Kopa muy gone gi gën a xarañ foofu nga xamante ni ci Ballon d'Or bu France